li ci yéeni kay yegg si nañ ci fas yéene cee dalal Seydina Omar Ba Seydina ñu ngi lay nuyu Abdoulaye maa ngi lay fay nag suba si ba tawatoo alhamdulilah ba nag suba si ça va ñu ngi ci jàpp euh, weekend bi alhamdulilah na lool hmm. jot na ñoo dallu <laughs> ak férié bi liggéey bi xaw na demee noonu boo gis dafa laaj trop hmm. <laughs> am na solo affaire gi daa métti waaw di ci profiter rek di hmm. di souhaiter bonne fête ah suñu mbokk chrétien yi yi ne bés moom ñëpp a ko bokk rek. waaw parce que màggal liggéeyantu yàlla Issa moom. Mhm. yaakaar ñu ñëpp a ko waaw kon yaakaar naa ne. nawel ci la. am na ci solo. nañu yàlla yàlla kàttan ak ñu ci ñaan rek suñu borom. def ko euh, ñu fekkee ay Noël yi Noël. Mhm. Mangog Seydina Ba euh, lu yéen a kaay xëy Walf Quotidien. Walf Quotidien dafa xëy daal Abdoul Mbaye candidat la ci élection présidentielle ci laaj ak tontu gi dox ci digganteem ak suñu naatangoo yi moom Abdoul Mbaye ma ngay fësal yoon wi nga xam fa la fa seen Eh, ngir teg Sénégal ci kon yoonu yokkute moon yoonam daal mooy Sénégal Sénégal bi d'abord moo ne la ko eh, war nañ def seen kéemtulaay kattan ba jaar ci FMI leen aussi loo xam yéen kaay gi xëy na ko fësal te mooy suñu université yi nga xam bu ñu defu ndànk mm-hmm. état bu Sénégal dafa nekk ci tànki privatiser ko noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale dépôt candidature yi jamono ji conseil constitutionnel mooy su la ba yoonu ñi nga xam ne di candidat yi Boubacar Diop promotion génn na àdduna amoon na lu ci tolloog juróom-ñett fukki la ko yéen a kaay gii di wàllu fukki at ak ñaar xëy fës. donc yéenay yéenay kaay gii di leefoo xëy dellu si waat ci élection présidentielle 2024 dañuy dëgmal bun jonn daanaka ma ngi euh, ma ngi wax. Euh, ma ngi wax kon ci yéenay kaay gii di leefoo ma ngay fësal programme bi nga xam ne am na ko euh, neen daal bu yàlla defee kon mu jotee ci bopp réew mi la muy njëkk a def mooy fexe bi indi absence moo jéggi dayoo jëmale ko ci askan wi de ndax askan dañu war a gis seen bopp ci nguur gi noonu la ko yéenay kaay gii di leefoo xëy fësalee. ma ngoog 24 heures. 24 heures Boubacar Camara ay kàddoom daal di wax ni waxtu wi jot na waxtu wi jot na ngir ñu indi ay changement nañu la ko yéen kaay gii di 24 heures xëy Fesal Abdoulaye euh, le mandat le mandat yéen kaay xëy dellu siwaat ci élection présidentielle 2024 yi ñu dégmal Bougane Gueye déposé na candidature am te nee bu yàlla defee kon bu jotee ci bopp réew mi dana xeex ba jëlee fi guerre yéen kaay gi di la mandat ci la xëy de turbine élection présidentielle yi di ñëw doon lu yitteel ñi nga xam ay sénateur lañu nekk fële ci Amérique ñoom ñëpp nag bind nañu ay kàddu euh, bind nañu ay bataaxal yébal ko président Macky Sall di ko artu ne ñu ngi dem ci élection yoo xam bu ñu def ndànk Sénégal mën na fay jaare tàkk te li ñuy xaar ci moom daal mooy mu fexe ba élection yi doon élection yu libre yu transparent ma élection yu jaar ci yoon mm-hmm. ña ci war a bokk yëpp bokk ca ña nga xam ne la ñuy jàppale ay prisonniers politiques mu bàyyi leen waaye tamit fexe bu opposition bi aussi bu ñu amee leen metti ñu wax ko noonu la ko yéen a kaay gii de la tribune xëy fësale lu fës ci réew mi yéen a kaay xëy dellu ci dépôt candidature yi mu ci xool conseil constitutionnel yéen a neexul ba neex waaye bëgg na ci jamono ji ñu ngi ci njàqare ndax kenn ku ci ne yaa ngi ragal ñu rejeté sa candidature noonu la ko yéene kaay gii di réew mi xëy fësal euh, le quotidien yéene gii di le quotidien ne candidature élection présidentielle yi di ñëw mbir yi kon bu doon ne course la léegi daanaka ñu àgg ca arrivé ba Hmm. Euh, noonu la ko yéen kay xëy fësale naana dépôt liste yi tey ji lay jeex bu ñuy jotee kon képp koo xam ne dépôt euh, déposé ci diggante bi jàppal ne kon da ngaa gi moo xëy fësal lu ni mel RND bi sampoon na mujjee na cee deltu ginnaaw ñoom nag ña ngay ñaaw anam bi nga xam ne la ñuy defee parrainage bi hmm. noonu la ko yéen gi di la ko tëjee xëy fësale euh, yor yor bi lu mu Ousmane Sonko nee nañu mu neex leen mu naqari la dafa war a bokk loolu nag ay borom xam-xam ñoo ko fësal muy ku ci mel ni euh, professeur Mamadou Gouda Mboup ku ci mel ni professeur Salif Sané ku ci mel ni maître Ngagne Demba Touré ak say bànni sugu ñoom daal dañ jàpp fekkee ne sukkandiku euh, euh, daal amul ko mën tere gii di yor yor xëy fësal bés bi lam ñëw jukkil yéene gii di bés bi xëy dellu si ci Ousmane Sonko bi nga xam déposé na candidature waaye nag ci bu matula mhm. ndaxte d' abord joxuñu ko fiche de parrainage ñaar njiital bi amul daal attestation bi wane ne joxe na caution euh, ñu njortu ne kon euh, cour suprême bi nga xam ne nii cour suprême dañ jox dëgg ah. Mhm. yéen di bés bi xëy fësale. Euh, yéen kaay di le public. ne à moo am fële ca PDS. Mhm. maanaam kii du war a saar la gars yi bëggoon a suufu. Mhm. ndaxte ñu si tudd nag kii di Saliou Dieng. nee nañu Saliou Dieng si boppam moom moo ngemb ku ci mel ni Fatou Sow ngir. cric ki nga xam moom di Woré Sarr ba jëlee ko ci bopp jigéen mbootaay gi ëmb jigéen ñi fare ci parti démocratique Sénégal waaye Maître Abdoulaye Wade moo lànk moo ne ñett mhm. mu euh, moo fa am benn promoteur moo fa ñëw daal di fekk ay toolu jàmm daal di koy yàq yaxeet ñu ngi ciy nag tudd kii di mi maire Tivaouane ñooñu la ko yéen kaay gi Dakar Times xëy fësal wax ci bés bi nga xam doon lañu ko màggal dem muy noyal di bés bi nga xam ci léegi gane Benjamin Ndiaye yëkkati na ay kàddam daal di woo si jàmm ci yoon ak tamit ci sellal noonu la ko yéen kaay gii di la soloy xëy fësal wax na ci élection présidentielle yi di ñëw moom monseigneur wax na daal li mu bëgg mooy élection yoo xam la a bokk yëpp nañ leen bàyyi boo xam ni dañoo war a euh, joxante loxo euh, maanaam teer li nga xam mooy di juunoo yi

doxoon ci diggante Reug Reug ak B52 bu Mbour. Reug Reug daan na ko jël ba amul benn werante. ma ngoog waxoon nga ko ci laata komba ne am na nu combat bi di demee. jàpp euh, Reug mun naa am ndam bu fekkee ne jàppante am na. Ah, jàppante am na. waaw et puis aussi euh, euh, Bombardier bien que bëgg na ko waaye instant bi mu waxante dëgg aussi dem na retraite. waaw magal na de. gis nga. des fois da ngay jékki-jékki toll yenn at yi mm-hmm. nga yaakaar ne la nga mënoon mën nga mm-hmm. fekk mën too ko mm-hmm. mën ko ngay jékki-jékki seen ab saaku ceeb bu cinquante kilo waaw sànjaafu ko nga ne xaaral mooy sànjaafu ko sànjaafu balaa nga ko yëg xol baa nga fa waaye sidit ba nootu fa doole boo dem digg lu dam nga ciy gis waaye lu waaye mën mënatu ko waaw boo xaar xasee nag am 47 ans mu nekk too xale waaw